moo doxoon ci diggante ak Lo alors est-ce que seetaan nga combat bi d'abord. waaw seetaan naa ko mais li may njëkk a wax ci balaa maa dugg ci combat mooy PPV boobu hmm. c'est de l'arnaque hmm. parce que xam nga lu tax nit ki yow mënoo mënoo jaay nit ki ne ko dama lay jaay ndox robinet baa ngi nii boo di nga am ndox nga tijji ndox mi di toq xam nga loolu. Hmm. Manam, mën nga am ndox mais pertement lay perte de temps lay doon. bëri nañu ko wax. non man j'ai vécu l'expérience. Mhm. man sama restaurant fii Passe Foot dama jënd dama jënd francs mais dama ko regretté dama ko mhm. parce que pay per view bi jaru ko. Mhm. cinq francs jaru ko parce que tamit même bu dee mille francs la mënoo jënd mille francs xaalis la mënoo ko jënd ci li nga bëgg am. am satisfaction réseau amuñu mhm. mais buñ def diñu mhm. Mhm. parce que buñu buñu buñu jëndé té ñu bëgg combat ji mais lool c'est de l'arnaque. C'est vrai C'est de l'arnaque, pour se la vérité da nga japp ni loolu bokk na ci li nga xam euh, combat parce que ñu ci bari sétane jënd nañ mais sétane parce que bari ñoo def na sorti dina xaru parce que waaw en fait waaw enjeu bi non non non non non parce que déjà ça bi fess gars avant combat bi ñu ko doon waxtané ba jour combat bi ñu koy waxtané mais seulement. Mhm. dafa wàññi ambiance ambiance bi nga xamni moy am ci kër yi am ci koñ yi. Mhm. tu vois parce que d'habitude lamb bu daan am. ñu koy diffuser ci ci ci télé bi. Mhm. ñëpp dañuy maam rendez-vous lay doon. surtout grand combat yi. rendez-vous lay doon ñi dañuy daje ci kër yi ñi daje ci restaurant yi comprendre nga en groupe en entre amis. tu vois en famille seetaanandoo ndoko après. coow li bari bu affaire bi kii yee ñëpp jubilé loolu loolu moo manqué. parce que tey bu dee da nga fay entre amis entre euh, en famille tu vois euh, nga toog li nga fay mu amoo mënoo seetaan bu ne prix image bi taxaw bu moo loo yëkkati loxoom image bi taxaw surtout bu arrière <laughs> image bi taxaw loolu c'est de l'arnaque. mais loolu kan nga ciy interpréter mooy promoteur ñi ñi yombalal affaire bi gars yi sera wala le ministre daf ci wax. Eh, non da xam nga. waaw dëkk moom day am loi day am yoon. waaw même promoteurs yi ñoom ñoo organiser loolu ñoom ñoo def PPV et tout mais bu ñu demee nag ba waral lor askan wi askan wi mënuñ amuñ fuñ ko xeexee mais autorités yi ñoom ñooy jóg. autorité ñu mel ni CNG ñu mel ni ministre de, du sport mais ñooñu dañ ci war wax parce que population bi instant bi kenn kontaanut. Hum, stade bi day fees dell. bi dafa fees dell buntu stade bi fees buntu keur mbër yi fees ah mais. mais jox ko exclusivité ben exclusivité ben ben parce que parce que tamit xale yi ñoy làmbatoon ñepp xalé yi ñoy téléphone ñepp am ñu doole ñu jënd connexion. non même ñi am doole jënd ko dañ ko koo ñu même ñi am doole te jënd ko seetaanuñ ko loolu amul sens. alors parce que dañuy ñëw nag ci combat royal bi. combat ci njëkk mooy euh, tey euh, taxawaayu Siteu ci li nga xam ne moom combat bi tey parce que tey Siteu bi jógee ci combat bi Modou Lo. leen jox ki nga xam te mooy victoire bi mais euh, nee nañ ki nga xam te ne mooy mooy Siteu dafa dem euh, ngir ngir def réclamation euh, pour victoire bi. recours waaw waaye du ko taw day def recours pour pour pour combat bi nga xam te ni doxoon na ci bi Modou Lo alors tey Siteu ni mu bëree combat bi tey est-ce que séntu woon nga ci moom loolu. non non te Siteu ni mu bëree nii sax moo ko xaj combat. parce que Siteu il n'a rien à perdre tu vois. Euh, Modou Lo Modou Lo bu bu bu nekkul ci fin de carrière nekkul ci ci ci début de carrière Modou Lo il n'a ñu daan ko mu daan amul lenn du muy perdre c'est que man su doon man la damay taxaw dëggal sama bopp xeex ak Modou Lo lu ma am xola bu may dóor ma daanu sax mais dinaa xeex ak moom xeex ak moom dugg ci yeel yi jàpp ko bëri ak moom loo am jën mais moi, Lo dirige le combat bi combat bi commencement ba fin Si tu es arrière ba dem même chute tu nga tu es dañ koy dañ koy Tu sax ci ci ci ci ci yi ci entre euh, premier et bi deuxième bi la waaw buñ tu tamit Tu saako yi nag fekkiwul kenn gars yi ñooy fekki ci saako yi. c'est vrai ah, mais est-ce que tamit mbër mu toll ni Modou xarañ loolu. Hmm. nga xamante ni ñu ko ñu ko ñu ñu ci bari génn ñu ci. parce que boo xoolee. Hmm. Euh, moo ki nga xam am Ama Baldé ñu ko attaqué Modou Lo daf ko rëppatal mu daw. waaw mu jàpp ko daan ko sëgal ko. waaw dëgg la Salim. Hmm. Siteu gone la am na doole te tamit Siteu mën na bëre non mais loolu lépp bu dajee ci yow nga toll fii nga toll Euh, Modou Lo toll fi mu toll mais jaay ko sa bakkan man man boog man man man su ma ko doon conseil loolu laa koy conseil amul moytu amul dara jaay ko sa bakkan jaay ko sa bakkan même buñ la daanee sax ñu ñu ne am na nga mérite mais pourquoi Siteu di arrière Modou di diriger combat bi jusqu'à la fin muy arrière loolu loolu loolu du woon kii am loolu loolu du woon du woon du woon combat bi. mais da nga jàpp ni manque de coaching moo waral loolu wala ragal moo waral loolu tamit. non man damay yaakaar ne dañ ko ko digal mais xam nga nag tamit mënoo xam li ci biir yëpp mais dañ ko ko digal mais booy liir booy liir action yi ak surtout comportement am mais da ngay gis ni kii mu ngi moytu. Hmm. mu ngi moytu parce que tamit. luñ la digal digal digal digal gis nga nit am na bu courage bu nekké ci yow ak fit luñ la digal digal digal amna yenn arrière yo xam doko def mais da ngay imaginer commencement ba fin Siteu daf ko arrière Jambar la nag on dit pas que il est il n'est pas il n'est pas démérité il n'est pas démérité Jambar la parce que tamit vu, Lo comme ni nga ko waxee neexut mais mais combat bi man pour man loolu la woon quoi songu ko dëggal boppam xeex ak moom jaay ko bakkanam indil ko seytaane mu saf saf wis ci kaani yaa ngi dégg jaay ko jaay jaay ko boppam mais day mën na am dara. waaw parce que tamit indi na état. Siteu Siteu indi na état. ba noppi. Euh, mooy état bi am na forme mu ngi en forme et tout tu vois donc euh, voilà quoi ah. alors ah. gis nga xam nga gis nga Siteu bi ñuy wax que moo daanu wala Modou moo daanu gis nga bi mu gis nga ni mu téye loxo Modou Lo bi ah, da ko da ko bloqué ci ba ni ñuy tegee ci ba ni ñuy daanoo ci suuf ba jógaat Siteu mu ngi téye loxo bi c'est vrai mais loolu ko man mhm. loolu doole te gis nga gis nga téye loxo boobu mu téye noonu mhm. mënoon na koo daan noon na ko cee daan mhm. parce que Modou mu ngi bëgg a rocceeku mu tëggoo waaw kon xam nga ni. mën na doon Siteu mënoon na mënoon na mënoon na dëggal boppam quoi. c'est c'est vrai peut-être na nekk ci côté wala aussi tamit moom da koo ragal rek. ñaar yooyu ñaar yooyu yëpp mën naa na nekk c'est vrai mën mais Modou loo forme bi nga xamante ni indi na ko ci combat bi ci bare bare bi dafa ngand gis nga ci tey euh, benn état boo xamante ni mën na jàpp ni baaxul parce que Modou Lo bi mu simee ko par rapport ak combat yi fi jàll wute na. Mm-hmm. donc entraînement boobu moo waral loolu wala dana jàpp ni euh, physique bi moo des bon non Modou mom euh poids bi mu indi man gëm naa ne bu ko bu ko amul woon bu amone moins que ça hmm. hein dina gën a sonal Siteu. dafa wax ñu bëri wax noonu lool parce que débat bi dafa def c'est vrai. non poids bi mu bi mu indi. dafa andi bu bu amoon moyen que ça. Hmm. hein hmm. dina sonal ci Siteu parce que bu boba physique physique mooy bu boba physique moy jouer rapidité bi. rapidité ak physique. waaw te modlo Atlet la amul mbeur bu ko ëpp physique ci lamb ci amul hmm. waaw mais ñu bari neenan tamit modlo euh, dañ ko sot ñen ñi modlo dañ ko jappon atteindre mystiquement alors est ce que gis nga sept bobu ci bobu parce que modlo d'après li wax lepp mais modlo bari na bi mom nañ ko nañ bayyi ku ñu ku ku daan wala ku ñu daan ñu mystique la mais mystique la lamb tamit mais dañ la fay fay ko mais mën na la mais ça buñ la fayé wa buñ la lamb la lamb ji tamit bu ñuy bëre bu ma la jekkoo dama lay daan mystique bi tamit ci bëre la bëre la rek. ok euh, Siteu Siteu deful mystique mystigul mhm. jéemul jàpp loxo Modou Lo mhm. takk ay loxo jéemul yóbbu fitam ci mystique mhm. jéemul leneen leneen ak leneen ak leneen ah mais ko fay fay ko affaire loolu nañ ko bàyyi ay mystique laal mystique a tax mu daanoo non daal bu taxee nga daanu baal mystique waaw alors dañuy ñëw ci verdict bi nga xam te ne arbitre bi daal dina ko jox gannaaw ba ñu amee avertissement ñi daal di jox ki nga xam te ne mooy Modou Khane Lo ndam li mais ñu ci bëree bëree bëri ak image yi nga xam ne am nañu ko ñenn ñi waa jàmm gën jàpp nañ Siteu moom moo daan Modou ñenn ñi jàpp ni euh, Siteu Modou comme ni ko arbitre bi jox victoire moom moo daan alors d'après bi ko seetaanee te yow. waaw doy na waar parce que sànq. Ah. maa ngi koy xoolaat ci TikTok bi. Ah. mais boo xoolee baax dafa mel ni euh, loxo Modou. dafa laal suuf ba ci ba jege mbagg mi laal na suuf ba jege mbagg mi waaye problème dafa am foofu xam nga lu tax euh, caméra caméra yi angle yi taxaw dafa des waaw parce que vidéo yi boo xoolee dañu dañu dañu dañu raté benn angle mooy angle bi féetee nële côté gauche côté côté gauche Modou Lo uh-huh. ak côté droite Siteu uh-huh. angle l'air leer Le problème bi pauvre. mais nous na ni tamit Nous tembo nous nduru na parce que ñom ñaan dañu nous lando ci li arbitre wax non man non, non mhm. que que que que jox kenn ci jël victoire Mhm. loolu laa gën a jàpp. parce que bu ñu fàttali ko euh, euh, euh, lamb ji décision arbitrale ak jeexee maanaam mooy. Ah, ah, avertissement yi nga xam moom règlement la. Mhm. loolu moom mhm. règlement la. Ah, mais Siteu tamit bëggoon victoire bëggoon couronne bi nga xamante ni dañu ko may sens est que tey moom bi ñu demee yenn round yi xamoon na ni combat bi bu eggee fii te te bëri amul dañuy joxe victoire bi mais daf mel ne ba tey nangul attaqué Modou loolu moo jaaxal ñu bari. non xam nga Siteu Siteu maanaam bu daanul Modou Lo du ko wàññiwul. est-ce que comprendre nga Siteu bu ko daanee nag doon na bu ko daanoon doon na mooy wu rëy mais bu ko daanul du ko wàññi dara duñ ne acim bu amee lii <laughs> décision arbitraire mais loolu loolu Siteu tey ba li ndam ci moom tamit nañ waxante dëgg ku mel ni Modou Lo nga tenir ko en échec ñu joxe décision arbitraire mais loolu loolu loolu exploit la mhm. exploit la Mm-hmm. alors tey Siteu li nekk ci kanamam parce que démb bi nga xam ne toog nañu plateau bi xam ne na soxla na ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2. pourquoi pas nañ ko ko jox. Ah. <laughs> waaw mais xam naa ni moom bëgg na gaynde de laaj na gaynde de. <laughs> parce que ñu ci bari nee na Balla Gaye moom combat am du yéex da koy daan mbaamu daan non non non combat Balla Gaye ak Siteu. Mm-hmm. Mm-hmm. du yàgg. du yàgg. te maa la ko wax fii bu yàlla dogalee combat bi am. du yàgg. déjà bal la boo dawee dana la dàqi jël la xëcc la te ñoom ñaar ñoo tolloo corpulence mhm. te bal la daa mën a bëri il est technique te bu la xase bu xa bu la xase ba jàpp moom mhm. fi muy jàppee ak fi mu lay dóoree ay affaire mhm. ñooy ànd waaw lenn rek la mën a def daanu mooy muy dóor mbasu wala genre yooyu waaw mais bu dee entraîné bal la entraîné la kii moom yaakaaruma ni mhm. ah Siteu dina ko mën a daan wala bu koy daan it du yomb waaw mhm. ah. mhm. est-ce tamit jotul mu xaw a jàng bëri parce que ñu ci bare bëri bi ñu génnee palmarèsam dañ ne ñi jot a bëri ñëpp retraité naan maam bëri fi moromam ba daan ko gannaaw Papa Sow mi nga xam ne bu xam ne moom moo ko mag nga gis baax na communication baax na mais ak bëre aussi tamit am na ci importance hmm. waaw xam nga naa la wax nag benn affaire Salim hmm. gis nga am na loo xam ne hmm? yàlla moo koy def si gis nga mën a bëri gis nga gis nga mën ngaa nekk école classe ngeen jàngandoo am na élèves yoo xam ne jàng dara vrai gis nga bu maître bi expliqué ba pare pare nañ ci. Hmm. bu compo ñëwee ñu dóor la dóor yu métti. def maanaam. don la don la. Hmm. maam da ngay mën ba pare jàng def perfor jàngaat nag jàng def performance euh, entraîné affaire yooyu. Hmm. dama lay wax benn affaire de. li na ci moom. li mu man daal loolu la man gëw ma ne dina yokk wala mu wàññeeku. teel sax wàññeeku bi mooy kii. waaw su maintenir li mu man muy mbër yëpp nag mm-hmm. Mm-hmm. mais dañuy ñëw ci Modou Lo xam naa fan la ñuy tëjee li nga xam te moo émission bi tey Modou Xarañ Lo ñu ci bëree bëree bëri euh, ne euh, war na mën a jël ki nga xam ne Sa Thiès ndax moo ko def ci xale yi. waaw ñii waaw ñii ni war na jël Balla Gaye te kam ku ne xam na ni Balla Gaye fi doon ni noppalul mooy entraînement guddi ak bëccëg. day mel ne couronne bi rek moom moo ko teeneeroon est-ce tey Modou Lo tey euh, bu duggee ci famille du bales est du ko yàqal. te ku ne xam ne Aziz Ndiaye ñoo ci Balla te ku ne xam lu mën lamb moom jaral na la lu ne ah lu mën lamb de ñoom mën nañ lamb nañ business te mën nañ seen mbër mais bon euh, man je vois bien eh, mieux euh, mu jël Sa Thiès hmm. loolu moo gën logique pour le moment nii c'est vrai loolu moo gën logique ni mu jëlee Siteu noonu la mën a jëlee euh, euh, Sa Thiès tu vois bëri moom bu daanee bu daanul yëpp bu daanee bu daanee bu daanul yëpp moo après nag man na après mën na retour bu ñëwaat ak Balla Gaye mais pour le moment nii moom moom Sa Thiès moom gën a logique te te te te te Balla bu bu doon tànn ci ñoom ñaar euh, kii si Modou du ragal du dara mais su doon su doon tànn ci ñoom ñaar man leer na ma ni Sa Thiès lay njëkk a bëreel. mu gën a oyof ci moom. waaw parce que <laughs> Balla moom bête noire loolu <laughs> te Modou la waxoon na couronne <laughs> koo bëre ba mu jeex jox ko waa parcelle waaye waaye bi moom du jóge ci moom loolu la waxoon. ah waaw loolu de moom xam nga moom loolu moom waaw loolu moom loolu sportif ku ne koy wax. Mhm. loolu moom kenn du ne man kenn dañ may daan. Mhm. kenn du ko wax. loolu moom. na ko wane te sax si rek. Mm-hmm. bu ci saxee bu àndee dogalu yàlla mën naa demee noonu. Mm-hmm. bu neexul yàlla nag neneen lay demee. Mm-hmm. alors fi ñu koy tëjee dañuy ñëw soo showbiz euh, Adidas Arena bi nga xamante ni Wally Ballago Seck war na fa jouer muy le 7 décembre incha allah Wally déjà mu ngi préparatif parce que tey rek am na répétition quatrième jour. alors Wally dañu seetlu keroog ba fa Sidi Diop demee di ko yëgal li nga xamante ni mooy zénith bi Wally daf ñu ko da ngay teel a dem. parce que foofu la communication bi mais waaye gis nañ dafa ba tey fi toll nii demagul mu ngi ci répétition bi. Hmm. est-ce que jàpp nga ni méthode communication bi nga xamante ni à ce moment mu ngi koy def euh, ya-, yaakaaroon dafa yéex ñu ci bëree bëri buzz bi ci waram amu ko par rapport ak bi muy. joué ak ak c'est vrai que man sentiruma effectivement bi. Hmm. mais bon waaye tamit peut-être xam nga am na expérience événement aussi. Hmm. tu vois peut-être euh, fële fi mu jëm. gars yi nañ ko fa ñu ngi defar terrain bi. Omaro dem na démb moom ñaar. waaw. kan ak kan. Omaro ak waaw gis nga déjà tu léegi affaire yi stratégie la communication tu ba pare Wally toll na foo xam ne euh, une semaine mën na ci def communication. ci une semaine mais communication du doy ndax màggal Touba. moo gën a siiw te ñëpp xam nañ ko waaye saa suy ñëw dañ koy publicité. ah Youssou Ndour lu mu si Youssou teew day def publicité. <laughs> bu ma nee màggal Touba kay bàyyiwuma kenn. c'est vrai. communication bi moom wax fa dëgg yàlla Sénégal de sentir xaw ma nag bitim réew waaw mais Sénégal moom. sentiruñ ko de. mais gis nañ kii Sidy Diop eh, li nga xamante ni Eumeu Badiane def na ko muy single bi nga xamante ni moom mooy jaay bis bi gis nañ ku ci mel ne Sidy Diop daa cee apparaître daa ci way ñu ci bëree bëri rafetlu ko ñenn ñi ni Sidy kat war war a def loolu. waaw ah, parce que bu mel ne jubóo ak waal yi day xaw a yàq li nga xam ne mooy showbiz ban gis-gis nga ci am ci loolu. xoola jubóo ak ñàkk jubóo showbiz bi seen diggante du mos a day man maa la wax loolu sax jubóo ak ñàkk jubóo ci showbiz seen diggante. loolu moo sa tey. t'inquiète pas. alors dernière question Coumba Gawlo Seck euh, démb ñu laaj ko question bi muy fête 40 ans euh, de carrière ñu daal koy laaj question ne ko Coumba euh, disque d'or d'après bi nga ko amee say morom am ko tey lan la artiste war a mën a def mu mën ko indi mu xam ne disque d'or wax mayu ko.

dèjà ñoom rek bu dul dara yaay la ci ñoom waaw donc kon conseil bi lu nice la te fii mm-hmm. lu ko war la def rek c'est tout gis nañ kàddu yu ko yaayam yëkkati wax ko ne ko rusloo woo ma ne ko euh, boo duggoon ci leneen rek du ma ko fekkee ndax damaa ragal gàcce muy mel ne complicité bi nga xam te ne am na ko ak ay waajuram loolu dafa yàgg waaw te génn mos koo dégg ci loo xam te ñàkk fa yàgg loolu mu nekk référence aussi tamit ci way naag baayam way ak ndeyam mm-hmm. loolu rek dafa yàgg te bo te boo xoolee ku bëgg segg Seck mhm. événement bu mu mës a am yaayam dana ñëw taxaw way c'est li ma la wax ba ci plateau télé yi muy def mhm. live yi mhm. yaayam dana ñëw artiste la yaayam donc euh, mën na mën na euh, teewee ci ay ay événement waaw ah, bu doon du artiste sax mën nañ mënoon nañ ko sax bañ a xam mais artiste la bu fa taxawee war na fa taxaw alors Pascal euh, ku ne xam na ni temps bi xaw na gudd te xam naa ni yaa ngi say activité alors lan ngay tàggatoog moo ko internet yi nga xam te ni ñoom ñoo doon si. jàmm ak salaam rek di wax ni réew mi métti na xaalis amul <laughs> waaw na xaalis am ndax ñu mën a fay bor yi. waaw. mais parce que yow yow nga xaalis ni nga leeral nii. ah ni nga leeral nii am nga xaalis. jàpp ak saabu bi rek moo tax ma leer du lenn. <laughs> waaw ak <laughs> mais dëgg la Salim. Ah. réew mi daa am nit yi. waaw léegi ñu ngi ñaan nag gars yi dañ liggéey. réew ndax réew mi neex. mais wàññi nañ li nga xam te ne mooy mooy mooy ceeb bi euh, gerte gi kilo gi léegi trois cent cinquante la ko def. gerte gi waaw baax na ba tey. waaw mais ceeb baa ngi fi diwlin bi. location bi <laughs> non man non man am naa yaakaar ni dina dina baax mais daal euh, euh, léegi moom lu mu da da da des koy làbbali waaw gars yi daal nañ nañ nañ nañ bàyyi xel ni réew mi na <laughs> gars yi ñu ngi souffrir waaw loolu daal nañ ko bàyyi xel dara doxul dara dara doxul.